jàll ci euh, xibaaru biti réew yi ñu wax euh, ci ki jiite Wagner di Evgeny Prigojine ñu ne dafa faatu ci benn avion bu euh, daanu sëñ Cheikh. yëf yi démb la amoon fële ca euh, Russie Evgeny Prigojine moom ak numéro 2 bi di Dimitri Utkin dañu jàpp ni dañoo faatu ci ab accident d'avion ci avion boo xamee ne dañ fukki nit ñoom ñoo ci nekkoon ba mu daanoo waaye fukki nit yëpp dañoo jàpp ni dañoo ñàkk seeni bakkan. Chelsea nag gisagum na juróom ñaar fi mu nekk nii nag ña ngay jéem def test ADN yi euh, ngir rek seet nañu leen di xàmmee avion bi ci diggante Moscou ak Saint-Pétersbourg la doon euh, daw ñu bari nag jàpp ne ab missile euh, bu jóge Russie moom moo ko daan moom Prigojine bi nga xamee ni ay jamono rek yàggul dafa jëloon décision ni day jàmmarloog Vladimir Poutine ba ni day dox ci kawam laata muy Euh, deltu euh, ginnaaw euh, moom tamit ràññi nañ ko ci Afrique ak Wagner réew yu bari yoo xamee ni bari na fa tànk loolu tax sax ba ñuy samp laaj ni DM bi yan conséquences la mën a jur fii ci Afrique rawatina ci sous région bi ci leeral la dañ ciy teew lu ka baax. génnum àdduna Yevgeny Prigojine mënul ñàkk am ay conséquences ci Afrique ndaxte milice boobu ñuy duppee Wagner. ñu ngi ci fukki dëkk ak juróom ci Afrique yu ci gën a fës nag mooy Mali ak Centrafrique bi nga xam ne presque foofu la mbiru miliciens yooyu presque soxeexoo mu nekk euh, benn mélange bu ñu gis ci affaire business mu nekk ci ay affaire politique ak euh, affaire intérêt géopolitique mu am ci ay njiitu Afrique yi nga xam ne dañoo lëkkaloo woon ak moom gulet euh, la woon ci Afrique mu lëmbee bu baax a baax ay dëkk yu bëri mu génn àdduna ci ay anam yoo xam ne yu doy waar la te ñu jàppoon ne moom moom ak Vladimir Poutine ñoom ñoo doon liggéeyandoo loolu mënul ñàkk am ay conséquences ci Afrique ndax tey soo xoolee euh, ñu fi def euh, ci lu mujj li yëpp ay coup d'état ñu ci bëri dañoo bëggoon lëkkaloo moom ak euh, waa Wagner ñooñu déjà choc boobu xam naa dina leen dal pour xam lëkkaloo euh, boobu na fan lay mujjee est-ce que Vladimir Poutine day indi ñeneen ñu wuutu ko moom Prigojine wala coopération boobu comme moom moo xamoon lu nekkoon ci biir secret yu ci nekkoon est-ce que loolu dafay dakk xaj na ci fan yu néew dinañ ci xam dara. voilà euh, kooku di Prigojine nag euh, faatu démb ci accident d'avion euh, foofu ca Russie du ñàkk actualité boobu dinañu ci dikkaat dañuy dem fële ca Zimbabwe wax ci élection présidentielle ya nga xamee ni démb la woon waaye élection yi dañu ko mujj prolongé mu continuer tey ji maanaam ci ñaari fan lay am lu toll ci juróom-benn million ci ay Zimbabwe dañ leen woowoon démb ca urne ya ngir ñu fal njiitu réew ak tamit. tabbu seen i euh, député waaye la nemmeeku ci élection ba bokk na ci ay retard ak ay incident ñëpp nag doon na xool euh, duel bi nga xamee ni euh, ñaar ñi ñoo ko seq muy président sortant bi di Emerson Mnangagwa ak principal rivalam bi di Nelson Chamisa opposition ba nag yëf ya jeexagul sax waaye ña ngay dénoncé ni ay fraude massive dafa am ci wote yooyu le ñu dem fële ci Afrique du Sud wax ci sommet Johannesburg les BRICS euh, ñoom nag euh, ñu ngay wëyal euh, yëf ya démb la woon ñaareelu journée sommet bi ci àllarba ji foofu ca santoon ca Johannesburg ci ñaareelu fan bi nag dirigeant juróomi réew yi nga xam ne ñoom ñoo ko seq ña nga doon waxtaan waaye ca la nga xamee ni la ñu d'accordagul te ñu koy sumb jamono yi mooy nu ñuy fexe gën a yaatal accord bi maanaam jëm ci perspective d'évolution euh, BRICS boobu nga xamee ni euh, Brésil Chine Inde Afrique du Sud ñoom ñoo ko seq euh, jamono ji fële ca États-Unis lañ koy jeexale ak primaire ya nga xamee ni commencé na ci côté républicain yi démb la woon débat bu njëkk bi débat bi nag bari woon na tension surtout sujet bi nga xamee ni moom moo concerné ancien président ba di euh, Donald Trump te nga xamee ni jamono ji euh, moom moo nekk ci bopp sondage ngir nekk candidat euh, républicain yi waaye moom teewul woon ca débat yooyu la kii di Donald Trump maa nga woon ca X Twitter di fa waxtaani ak i internautes yi soxna naata